pot bu série Marichou def ko ci Krépin jaata euh, ginnaaw bu Sénégal toogee ci huitième de finale yi moom nag euh, acharnement boobee def ci daal di amee ab lynchage ci réseaux sociaux yi mu mel ni sénégalais yi d'accord ñu wala sax nanguwuñu euh, kàddu yooyu nga xam ne pot def ko daal di jël teg ko ci Krépin jaata waaye commentaire bi nga xam ne def na ko aussi ci Adji Sarr Eva. donc dañuy dooree ak commentaire bi nga xam ne def na ko. mu di ñetti poste yoo xam ne moom pot moo ko daal di def mu di Pa Omar Diop mu ne bu défaite bi méttee bu fàtte ni euh, on a on est champion d'Afrique sans Krépin Diatta mm -hmm. donc soyons fiers de nos lions sauf Krépin Diatta mm -hmm. ils ont mouillé ils ont mouillé le maillot mais l'adversaire en face était plus fort mm-hmm. nañ defaruwaat après mu ne merci à toute l'équipe joueurs staff inattend intendant waaw médecin cuisinier merci à tout le monde sauf Krépin Diatta hmm. ba tey Krépin Diatta lay attaqué waat mu ne lépp lu ma naqari sama àdduna Krépin Diatta moo ma ko teg après mu demaat si beneen poste bu mu defaat mu ne flop Krépin Diatta turandoo Krépin jaata imam bi tudd Krépin Diatta ki ngénte <laughs> Krépin Diatta waa waa koñu Krépin Diatta hmm. xaritu Krépin jaata jabaru Krépin Diatta mhm. mu mel ni moom pot ba tey comme li nga wax sànq rek ñett ñetti textes yooyu nga xam ne moom lañ jot a liir mu def ko ci ay post yekk ay kàddu yu ñaaw a ñaaw jëmale ko ci l'international sénégalais boobu di Krépin Diatta Sénégal yëpp ñaawlu ko également si euh, Pod boo xam ne siiw na mais également ci ay commentaires yoo xam ne yu négatif la xam naa nabu dina si ñëw si kanam ci attaques yi nga xam ne sénégalais yi def nañ ko ko moom Pod mais lu ñu mën a jàppandi rek moom moo di Pod Euh, maanaam nee na ci bu ñu jàngatee ay waxam Krépin Diatta moo tax Sénégal ñu gagné ko huitième de finale mm-hmm. sauf Krépin Diatta comme ni mu ko waxee dem ba cay tudd imam ba ko tudd seen waa koñ ak ay jabaram ak ay xaritam ak yooyu yëpp Zeyna mm-hmm. euh, mu nekk euh, ay publication yoo xamante ni moom pot def na ko muy Pa Oumar Diop moom moom daal Diop la sant daal Diop daal la sant moo tax waxam ji dara duma ci bett ndax jóobee ni ñooy def yi <laughs> donc mu doon commentaire bu mu def man li ma ci gën a tikkee mooy Euh, su demee ba remercier tout l'équipe dem ba remercier staff bi ba remercier cuisiniers yi la doon toggal je pense que ni pot war ngaa mën a remercier Krépin Diatta ndax euh, euh, vraiment même bu dee trente minutes joué na ko et trente minutes porté na le maillot du Sénégal trente minutes porté na la drapeau du Sénégal e ñun suñu soutenirul suñu doomu réew je ne pense pas yeneen dëkk yi wala yeneen conjoints yi dañ ñëw di ñu soutenir suñu doom c'est vrai que défaite dafa metti ah défaite dafa metti ku nekk ak ni ngay dundee défaite mais nag ki nga xam ne daa bàyyi léppam dugg ci terrain bi di football mhm. euh, tey santé am nekk en danger vie am nekk en danger parce que plusieurs fois ñu ngi gis footballeur bu daw wa daanu ci terrain bi doy na waar def cardiaque et cetera et mhm. su ko defee rek sa réew moo tax mu def ko quel que mhm. animateur rek présentateur rek jouekatu théâtre rek ñëpp a yem tey kenn am na du toujours lay neex mm-hmm. des fois nga gis ñu ne politicien bi de dafa yéeg temps yi moo tebeuse bi temps yi wàcc na mm-hmm. euh, basketteur nga ne temps yi wuu day dugal rek mm-hmm. mais temps yi moom xaw ma lu ko dal donc loolu sa arrive à tout le monde su fekkee Krépin Diatta dafa nekkul ci moment te tamit euh, euh, nañu nañu nañu bàyyi xel que ni Krépin ci blessure la jóge mhm. mën na bañ a nekk en cent pour cent ci ay formam mhm. waaye quel que soit alpha man lu may wax doomu Sénégal la et ñun bu ñu ko soutenir je pense pas euh, beneen nationalité daal koy soutenir mhm. li ma gën a tikkeloo ci poste bi mooy tout Krépin Diatta daf ko bind en rouge parce que man je me suis posé la question ne ko nekkul sax xaritu Krépin Diatta la muy foo di tooñ mais quand tu une personne le nom d'une personne en rouge ça veut ton degré d'acharnement est de trop. Mm-hmm. est de trop. Nabou mu ngi noonu comme ni ko euh, sénégalais yi daal di daal di waxee comme ni ko waxee rek bi mu defee loolu jouru match bi mën nañ jàpp ne xëy na peut-être da ko def sous colère parce que quoi qu'on puisse dire euh, bi metti woon nañu bari bon bee ko jàppoon rek. peut jàpp la ba nga singale benn nit di koy wax yenn wax yi. ba ci tuddaale seen waa ko non en fait mais mais mais je vous trop loin peut-être moom benn nit non am na ñu fi wax Aliou Cissé xamoo dara. am na ñu fi wax équipe bi nangam am na ñu fi wax. Krépin am na ñu saaga. mu ngi noonu mais teg le trois postes. trois tudd imam bu ko tudd tudd jabaram tudd lépp ça c'est de trop ay xaritam. Ah. Ah, mu ngi noonu donc mu nekk. kàddu yoo xam ne mënoon ngaa jël sax mënoon ngaa jël appel nag ñu dugal la parce que vraiment bëggoon nañu am explication. waaw ah, on a cherché dugal ko fii pour mu jox yéen a ngi yéen a ngi wër ku naqaree jël ci média mu ngi noonu ah, mu ngi noonu en tout cas acharnement lak du acharnement weex na ko xat ndax bi mu génnee ah, def post yooyee nag réseaux sociaux yi ñu bëri daal dinañ ko reprendre at waaye itamit sénégalais yi ku ci nekk daal di nga ko wax lu oh, yàq ko ay yàq yu mucc ayib waaye itamit yàq nga ko lu nekk loo xam ne rek ku ko dégg taf sa nopp wala taf sa gémmiñ nax moom nag quoi qu'on peut dire mu baal ñu moo ko daal di cherché xamuñu woon ba xam peut-être jege na ko da doon tooñ am déet en tout cas tooñ nag tooñul li mu li ko sénégalais dundee daal mooy que ne euh, commentaire yi ñëpp daal nañ dal ci ki nga xam ne moom moo di Pod kii nee na ko c'est de l'acharnement pas joli du tout hein, euh, que lui, euh, au moins, sa célébrité est saine et sur une fierté donc c'est une fierté mu nekk euh, koo xam ne xam naa loolu la bëggoon a bind mu daal di juum rek ci commentaire bi kii nee na ko am doucement rek bu leen teel a wax est-ce que c'est réellement lui piraté wuñu kontam parce que tamit quoi qu'on puisse dire acharnement bi aussi bëri na ci moom mu ngi mhm. noonu kii nee na pourtant nag wax na dëgg je suis d'avis avec lui lépp lu ñu mënti dal Krépin jaata moo ko daal moo ñu ko daal di teg Aliou Cissé xaw ma lu ko Crépin defal ba mënu ko dindi tout le temps rek da koy dugal di ñu ko imposer du ñu ko forcer kii nee na. ba tey ci li nga xam ne moo di commentaire yi nekk ci biir euh, réseaux euh, sociaux yi kii nee na suis d'accord avec toi sérieux lii rafetul pot war nga xoolaat sa bopp parce que mm-hmm. lii du sa wareef mm-hmm. ba tey ci yeneen commentaire yi kii nee na ko Euh, Crépin Diatta moo la gën foofu teg ci euh, gën ki la gën ak sa visage bu mel ni flèche donc euh, lu ne dégg na ko. yaa ngi tooñ nag ndax <laughs> buñ ko tuddal loolu waaye. am na yeneen tur sax yuñ ko jox yoo xam ne ah. mënuma ci jaaraat. mu mel ni sénégalais yaa ma gën a xam commentaire yi comme man naa ah, neexul kenn. neexul benn sénégalais en tout cas en tout cas mm-hmm. ci bi daal. mayuñu ko dara. wex na ko mm-hmm. xàtt te xam naa ne il vraiment li mu mm-hmm. def. surtout il regrette li mu def yemul ci nag parce que. Euh, d'autant plus que ni mu ko defee ci euh, Krépin Diatta mhm. ci huitième de finale yi mhm. euh, noonu la ko defaatee ci Adji Sarr mhm. moom it boobu waxaat ko xatt <laughs> sénégalais ñu ngi laajte sax parce que est-ce est pot dañu dañu piraté li nga xam ne moom moom wax nee nañ def leen attention parce que je et je pense que ni su su fekkoon dañu piraté comptam il va faire une te ñun dinañ ci jot mais depuis lors man je je tey publication yi ñëpp a ko gis man tey bu fekkee dañu piraté sama compte wala ñuy utiliser sama tur ci def yenn publication yi du dëgg dëgg damay mhm. génn def publication ne du dëgg moo tax dañuy dindi teesu ba xam dañu piraté compte am parce que lii mu ngi bëgg a am une semaine mhm. et boobu ba tey euh, gisaguñu mu def ci ab sortie naam mu wax ci euh, ba tey yamu ca de dafa ñëwaat ci Adji Sarr de moom daal daa mel ni moom <laughs> xam naa li ko li ko li ko gars yi di wax naan kan jëlal Adji Sarr mu joué la ci film yi xam naa moo tax moom mu foog ni daal moom xel mi dina dem ci loolu waaye commentaire na ci Adji saar boo xamante ne neexul sénégalais yi tamit dal nañ ci kaw ba si commentaire yi Zeyna bu fekkee comme li nga wax du kontam. Mhm. dañ ko piraté war na mën a def ay réaction pour xam <laughs> xamle ne du du kontam mais bu ñu xoolee. commentaire yi bu dee moo koy def aussi des fois dafay dafay àgg foo xamante ne nii wax dëgg yàlla du lu ñuy mm-hmm. ko déjà te fii bu ñu la xamee déjà am benn poids buy tegu ci sa boo xam ne amatul mm-hmm. droit def erreur amatul droit def ci côté communication tey war na mën a defaraat defaat image am ba bu génnee ñu ne ah pot mi ngi nii macha allah euh, comme des fois dañ koy faral di méngaleeg rôle yu muy joué <laughs> dafa bëgg jigéen genre yooyu noonu donc war na mën a geneen xar kanam goo xam ne dana mm-hmm. wute lool lool lool ak rôle yi nga xam ne moom lay joué mu di pot bu responsable pot boo xam ne dafa respecté ñëpp ñëpp respecté ko <laughs> mais vraiment mhm. euh, bu nekkee kaw Krépin bi moom moo ko posté donc lu ñu war a mun a ñaawlu la parce que Krépin defu ko dara en plus de ça moom dafay fàtte ne moom moomul équipe bi moom moom pot mhm. équipe bi Sénégal ko moom euh, défaite am na défaite am na amul droit di acharné wu ci kii que ce soit Aliou Cissé dégg na fi lu acharnement amul kenn amul droit acharné aussi na droit joxe point d'avis mais pas acharné dafa acharné wu si moom trop loin ça moom maa ko wax te je bien mais moom acharnement moom nabu damay bañ nga jaawale benn affaire. il droit de dire son opinion mais pas muy acharné wu nit. bay tudd seen waa koñ seen waa ruq ak seen waa ay xaritam ak imam ba ko tudd loolu c'est pas joli non je sais mais bi nga ne euh, équipe nationale ñu fay jouer ñu ngi fa amul droit wax ci lenn amul droit non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça dama ne amul droit acharné wu ci Krépin Diatta mhm. amu ci droit acharnement kenn amul droit di acharné wu ci mhm. kii que ce soit ci droit Mhm. déjà tey jii bu ma acharné woon ci yow léegi bu la neexee dem porté ma plainte parce que acharnement laa def si yow mbokk jug ñi la bëgg voilà dafa dafa ñaaw au mhm. ci pot boo xam ne déjà ñëpp xam nañ ko du n'importe qui donc lii war na mën a euh, jàngataat si ba rectifier erreur am tey jii ñu doon wax yenn wax yi si moom wala si mbokk comme ce qui est sûr mooy du ko neex mhm. léegi tey bu gisoon beneen nit boo xam ne dëkkul Sénégal muy acharné woon yi si Krépin Diatta est-ce que dina taxaw mu faj ko wala est-ce que dina jox suñu suñu ay doomu réew gëdd bañ génn si beneen ñu jox leen gëdd su boobaa nga bëgg jot si ñoom wala genre te duñu duñu duñu mën a jot si ñoom mhm. wala ñu ne diw de respecté wu réewam alors que lii moo fi am des fois mhm. yaa ngi koy wax léegi ci blessure la jógee gis nga euh, suñu match ñu nag ñu nag kii nu mu tuddati euh, Équateur mhm. euh, bi mu bi Aliou Cissé sentir Krépin Diatta ne voilà quoi dañ koy génne donc ki nga xam ne moom mooy coach bi ñun munuñu jël place am li ñu mën mm-hmm. moom moo di joxe suñu avis nii la waroon deme nii la waroon demee te suñu avis itam mën nañ kaa sax bañu appliqué donc mm-hmm. bu boobaa loo siy wax na nekk lu rafet bu la mm-hmm. si kenn gàddu bu la si kenn ŋàññ comprendre nga bu ñu ñëwee si commentaire bi nga xam ne def na ko ci ci Adji Sarr moom itam boobu defaat na bës <laughs> parce que ci bis bi mu ko defee est-ce que am laalul sa saafara jàmm <laughs> waaye AVM doomu la joxe tamit ah, lu baax ah, waaw AVM la joxe kaa bi mu def ci moom daa am donc fasal ko de mais gi mool na de di zoom di wàcce te naan déedéet dañ ciy teg moo na waaw baax na dama gis dama gis lu rafet <laughs> dong mu daal di wax ne ah te moom président sax la doon wax président mais xale bi mool na de kii mool na tooy na. mais loolu sax garaawul. loolu lu ne dégg na ko. Ah, c'est parce que c'est pot mooy lu ma doon wax sànq Zeyna. boo xasee am benn posture bi warutoo mën a def yenn en fait sénégalais mm, loolu loolu mooy suñu problème quoi mm-hmm. Zeyna bi nga xam ne xam nañ ko déjà Sénégal mm-hmm. amul droit génn taxaw si mbedd bi léegi coob saw ak ngeen baal ma si kàddu gi amatu droit boobu parce que dañ naan lan korom ne Zeyna bi nekk Seneweb de moo saw fii waaye rafetal dee ko wodd <laughs> na man kii naa ko mos a wax comprendre leen rek sing waay kon sing waay <laughs> sing waay <laughs> olof laa la làkk de man rek moo ko fi dégg nee na ma man olof bi may làkk yéen mooy saw dama dama gaanuwaay mooy leneen la ca des. <laughs> maga la yar eh, vraiment ñu ngi remercier ñu ñuy seetaan ñoom muñ leen rek yàlla baax na eh, ah, muñ leen muñal leen ñu yàlla baax na dafa jot sànq benn message vraiment des eh, des personnes yu nekk ba Nations Unies ah, nee nañ daal ñoom moom jeudi bu jot waxtu bi bu jotee dañuy sax des fois waxtu julli bi <laughs> ñu naan nañ seetaan ba pare door a yeggali julli bi maa ngi leen di nuyu euh, sénégalais yi nekk foofu ci Nations Unies vraiment dañuy bàyyi xel émission Sen People et ma taxaw rek nuyu ñi nga xam ne ñu ngi euh, nekk nombre di ñu euh, seetaan actuellement sur Seneweb TV rawatina émission bi di Sen People rawatina suñu mbokk jaspora bi rawatina ñi nga xam ne Euh, jamono ji ñu ngi ci embouteillage bi mu metti loolu ñu baña a euh, bañ a sonn di ñu déglu et di ñu seetaan aussi euh, Barou Ba Obo Camara ñu ngi leen di nuyu bu baax Saliou Diaw Bakary Tara 2021 Tara Saliou Diaw aussi encore une fois les derniers remparts d'Afrique ñu ngi lay nuyu Bamba Gueye ay tur yu garaaw gis ci YouTube bi Sëriñ Amat Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ba Kalidou aussi ñu ngi koy bàyyi xel Fama Kassé yéen ñëpp vous êtes Ismaïla Mbène Sarr yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu euh, Cheikh bu jóg xam naa moom moom euh, day faral euh, pot ndax Diop la sant ni moom waaye waxoon naa sànq dara bettu ci ñu sant Diop ñoom moom il se permet de tout waaw il se permet de tout te dañu foog ne ñoom ay buur lañ ba tey te ay jaam lañ mu ngi noonu ñu ngi nekk nombre di ñu bàyyi xel actuellement sur Sen TV Sen People dama leen di kale waa kay njaay laa sant ba di kale wax <laughs> Sénégal dafa metti mu ngi noonu di leen fàttali kii genre ah, yooyu attaque xam nga jóobe ni taw da gaaw a jooy ah, non damaa gaaw a jooy gis nga ko de je suis très forte nag mu ngi noonu Thierno moo nekk ci réalisation bi tey di ñu gunge euh, sànq la fi yóbbu suñu fit bi bi ah, ba ñu bëgg a crise merci aussi ci sa ndox bi ñu may Thierno maa ngi lay remercier bu baax euh, point express bi la ñuy daal di dem muy waxtaanee euh, au sport euh, au respons